ngeen jëf ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii nag euh, ci jaalibatu ba tey ci bis bi nga xamante ni moom lañ dëgmal ni ngi suba ak jàmm incha allahu rabbi waaye ñu taxaw ak euh, commission boo xamante ni mën ni naka jekk ñi ngi ànd ak Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Sow bi ci liggéey yi nga xamante ni mi ngi koy amal fii ci biir Touba ak li génn dëkk bi moo xam guddi àjjuma la wala benn fanu safar wala bépp activité boo xamante rek Serigne bi mi ngi koy amal ci guddi xasida yi wala lu dul moom rawatina bis bi rek ñu am liggéey bu am solo boo xamante ni dañ ko ci amal bu baax a baax a baax ñu feggoo suñu loxo loxo ndeyjoor ñu ni moom it la ci wàll gii incha allahu ñu fas yéene leen dékk suñu micro rek ñu wax ñu ci seen wàccaayu li nga xamante mooy bis bi nga xamante ni ci lañ nekk jamono jii macha allah mu doon loo xamante ni ñoom ñii ñu mat a waxtaanal lañ ndax bis boo xamante ni li fi tase ci mbooloo kenn mënu koo xayma kon ñoom du ñàkk ñoom am ay wàccaay yoo xamante ni macha allahu rabbi dinañ ko ci waajal baax waaye xam naa laataa sëñ Cheikh ñu dal ci sëñ Xaadim mi nga xamante ni moom it yàgg naa teewe événement yu mel nii nga xamante ni moo xam ba ci màggalu Touba waaye rawatina bis yi nga xamante ni mën nañ ne bis yu mag la ci yu moo xam fii ci biir Touba ak li génn Touba moom mu am taxawaay bu am solo boo xamante ni it daf ciy liggéey ci fànnu sécurité macha allah mu wax jàngatam ci bis bi nga xamante ni it ñi ngi koy amal fii ci Touba Jaalibatul Maraaxib ban taxawaay la fi sécurité war a taxaw bu baax baax a waaw asalaamaaleykum euh, jërëjëf euh, sëñ Faye euh, di tàmbali di jaar suñu kilifa xalifa général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér te naal yi mu am yëpp di nga sëñ Tuubaa mu eggal ak jàmm salaam te naal yooyu defe naa si magal xas bokk at bu jot kanam ba noppi di am réussite 100 pour cent bu ñu nee réussite 100 gis rawatina bis yu mel nii. mooy euh, wàllu sécurité ndax ñu xam nañ ne sécurité moom euh, mënta ñàkk si événement euh, te foo xam ne ay nit dañ fay daje foog mu nekk benn pàcc boo xam ne ci liggéey bi dañ ko war a fulaal jox ko gëdd ba liñ ci séntu yëpp mu mën a am. loolu nag bu koy def dañ ci lëkkaloo ñi nga xam ne sécurité mooy seen liggéey dañoo sécurité des biens et des personnes moom lépp luy jëm ci alal ak doomu aadama te gox bi ñu nekk nii mu nekk zone gendarmerie euh, ñoom nag at bu jot euh, bi ñu tàmbali bi si xasee ba léegi dañ ci am taxawaay bu am solo ndaxte euh, ginnaaw doomu aadama yi nga xam ne moom lañ war a seen sécurité dañ ci boole ak benn collaboration ak benn coopération boo xam ne bu am solo la ndaxte ak jamono bi ñu nekk nii nit ku nekk sécurité bu njëkk. mooy yaa koy assuré sa bopp ba noppi ba noppi léegi ñoom ñu ñëw daal di euh, toftalu si si si sécurité boobu su ko defee lépp mën a mën euh, si wàllu xasde yi euh, ñoom ci préparation lañ leen ci boole donc li ñuy xalaat fii yëpp ci wàllu sécurité ñoom ñu ngi ci euh, déggu ak ñoom amuñu si benn réeru euh, moo xam tàmbali euh, seen kilifa yu mag bi nekk ci ci ci légion bi yëpp ba ci ki nekk si compagnie bi ba ki nga xam ne moo nekk fii Touba Belal ñu ngi siy jóg ak moom ñu ñuy xelal ñun tam ñu leen jox di nga xam noonu la xalaat ñoom tamit ñu ñuy wax ñi nga xam ne noonu la bëggee ñu ñu liggéey ak ñoom nga xam ne bu ñu ko boolee li ciy génn njëriñ ñëpp lay nekk. te am nañ yaakaar ne incha allah bu bis bi ñëwee dinañ ci am lu kay suñ jot tàmbali gi sax mooy ñoom euh, bu ñu nee suba la euh, lañ tàmbali indi seen i élément ngir commencé euh, tàmbali liggéey bi ñu ñu fekke ko ànd koo ñun ba ci bis bi ba ba mbir mi jeex léegi beneen bi nga xam ne moom moo moom la ñu bëgg rek mooy ay doomu aadama bu ñu dajee fenn balaa sax ñu indi yoon bi dafa dafa war a am lu ñuy wax discipline waaw rawatina nag nga nga nekk taalibe ndaxte discipline mooy li nga xam ne mooy yar ak teggin xam ne booy eh, dem fenn foo xam ne si ay eh, mbokk taal bi fekk sa ay nawle sa ay kilifa ak ñoo yàlla kilifa am na benn comportement boo xam ne war nañ ko am def naa buñ ne murit ne taalibe yar ak teggin def naa li si jiitu si la bokk donc ñu ngi ñaan ñëpp ñu nga xam ñoo fi ñëw fii dina am mbooloo bu takku boo xam ne ku nekk bu demee ak xelam du sotti ñu ñaan bu ngeen fi ñëwee eh, te sëñ Tuubaa tax leen jóg xas day tax leen tax leen jóg ñi nga xam ne ñoo fi nekk sécurité am na sécurité civile boo xam ne sëñ si Sylla bi moom mooy moo koy jiite ak ñi mu àndal ak sécurité euh, gendarmerie euh, su ko defee yoon bi nga xam ne moom lañ leen teg ñu ñaan leen ngeen ngeen topp yoon boobu ndaxte bu ñoo toppee euh, mën naa ne ñëpp dañ mën ziar ñëpp dañ mën jëriñu si bis bi te te te coodu am te kenn du sonn ndaxte nit mën nga ñëw si bërëb sonn te doo te doo am li nga bëgg mën nga ñëw ici doo am benn coono war na am am li nga bëgg donc ñu ñaan ñëpp bu ñu ñëwee ñu toftalu ci sécurité bi ci protocole bi ak accueil bi. fañ leen tegloo fañ leen toogloo ñu toog fa fañ leen dugaloo ñu dugg fa lañ leen toog def ko loolu suñ ko defee liggéey bi dina jaar yoon euh, te te kenn sonn loolu ñaax bi nga xam moom laa bëggoon ñaax mbokk taal mi nga xam ñoo fi ñu fekkee ko ak allah jërëjëf mel ni ñuy guddi xasida yi benn fanu safar mën nañu événement boo xamante rek sëriñ bi mi ngi koy ànd ak ahlu xasida bokk nga ci ñi nga xamante ni sécurité bi yéen a koy jiite ci biir terrain bi macha allah du ñàkk ren ngeen am ay wàccaayu foor yoo xamante ni di ngeen ko am ba ku fi ñëw rek xam na sécurité bi nga xamante ni ñoo ne kër sëriñ sa Mbacké moom sëriñ son bu waajal nañ liggéey bu baax a baax a baax sëñ waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaar ñëpp di tuubal ñëpp di jégalu ñëpp di xirtal waat jëmale ci sëriñ bi di ñaanalaat suñu sang bu tedd bi sëriñ Amsatou Mbacké suñu borom yàggal ko suñu kanam moo magam gi tedd jëlee di Cheikh Mountakha di sëñ Touba di di di fàttali ni bis bi ñëw na te fas nañ ko yéene ànde nañ ko daan àndee ren tamit waaj gi ñu waaj waajaat nañ lu ëpp la nga xamante ni moom lañ fi moom moom moom lañ liggéeyoon daaw ndax mbokk taalibe yi tamit nosu nañ nosu goo xamante ni ñëw nañ wàll siwaat nañ si liggéey bi gën ma koo bëgg man ba nga xamante ni ñun suñu liggéey muy sécurité civile bi ñun dinañ assurer maanaam kër gi ak lu nekk ci ginnaaw kër gi dinañ assurer biir biir gamaak gi dinañ assurer alentouru sëriñ bi te it waaj nañ ay personnes civiles yoo xamante ne aussi dinañ raaxarloo ci biir nit ñi comme li ñuy wax naan ñi gàmm ak ñii raax ak ñii raas ndéem loolu tamit waaj nañ ko ci wàllum sécurité bi pour jàppale ko suñu mbokki gendarme yi nga xamante ni daanaka ñoom ñoom loolu mooy seen kii tayit ñoom fu ñu nekk ñoom ñooy suñuy kilifa ci loolu ñu fas ko yéene ànd. sécurité dafa dafa xaw a dafa xaw a doy waar te bu bis bi ñëwee dafay bari ñoo xamante ni dañuy ñëw ci wetu sëriñ bi. di fa taxawaalu ñu yaak te boo leen waxee dañuy wax dañuy sécuriser te ñun mënuñu di liggéey dara pendant six mois di ci wax di ci wax di ci nos di ci nos ba ci bis bi ñu nos nu ñu war a taxawee ba pare nga gis des individus ay retombées ñëw suñ dikkee dañuy dikk taxaw taxawaayu tuddoo tuddoo suñu tur ñuy fàttali ni ñun bu bis boobaa di ngeen gis suñuy màndarga. li nga xamante ni moom moo wane ni kii élément sécurité la li ñuy kaas li ñuy kaas ci ñiy taxaw ci wetu wetu sëriñ bi ñu naan sécurité li ñuy kaas ci cérémonie officielle bi ñu naan sécurité ñooñu duñ ay personne sécurité personne sécurité yi boo leen ci gisee sax dañuy réer ak feeñ te am nañ ay mandarga am nañ ay ay ay yére yu ko wane am na ay ay ay badge yu ko wane te sëriñ bi dafa dafa baax ndax sëriñ bi mënta mënta mënta ñàkke kersa kenn te da ngay gis koo xamante ni dafay ñëw sëriñ bi toog loo ko moom xam na war naa mën a xam ne ngir sagal ko la ci jublu waaye barab bi sëriñ bi di toog gis na xataay bi muy xat bu fekkee ni jug ngir jàpp ci liggéey bi dong ko tax a jóg moom moom moom ci boppam war naa mën a xam ni sagal la ko la ko sëñ bi bëgg a sagal moo tax mu ni ko toogal na le waaye moom xam na li ko fi andi ndax bis bi képp ku fi ñëw jàng xasida arxuraan tudd yàlla julli ci yonent bi sant sëriñ sëriñ Tuubaa moom moo la fi moom moo la fi andi. kon li loolu noonu ba ba ñi ko xam dëgg sax dinañ fi ñëw ba jóge fi duñ jaar fa sëriñ bi jaar ndax dañoo bëgg a jariñu ku ci bëgg jariñu dangay dem farankulaay ci barab yi nga xamante ni moom lañ wootee loolu ndax di nga dégg màggal gu ne waaye màggalu xasida fii la am màggalu xasida buñ ko waxee da war a ñëw maanaam tawféex googu fa suñ borom di wàcce ci jamono jooju nga fexe cee nga fexe cee barkeelu la lay tax nit di ci barkeelu mooy toog nekk ci arxuraan gi wala ci xasida yi waaye du xëntewoo ñëw di xat-xatlu ci ci booru sëñ bi ñuy fàttaliwaat bu baax ñi nga xamante ni dañuy faral di ñëw di taxaw ci booru sëriñ bi dafa am commission bu ñuy wax sécurité individuelle ak sécurité militaire boo xamante ne ñoom ñooy ñoom lañ désigné pour ñu am droit taxaw foofu liggéeyal liggéey fa seen liggéey ñun ñi nga xamante ne muy muy gendarme yi muy sé muy sécurité civile bi bu ñu leen bàyyee ak seen sogo rek sëriñ bi du mës a xat. macha allah seen seex waaye ba mm. tey danañ sécurité. Mm. Eh, li ci ëpp daanaka xat. Mm-hmm. waaye est ce que leen ko waajalee noo xamante ni mm-hmm. ba tey ñëw. Mm-hmm. maanaam xàll ci avant rek waaw ren nii bu fekkee ne boo xoolee organisation plan bii ma teg nii maanaam ngir ngir loolu la. dafay am avant dafay am avant premier doog a doog euh, doog am premier maanaam dina am ñoo xamante ne dinañ taxaw ci naaj bi mais waaye liy dugg ci biir bâche bi nekk ci wetu sëriñ bi mooy ëpp léegi ñaari ñaari temps lañ koy def benn temps bu njëkk bi dinañ am ñu ñu libeere ñu ñu ñëw ba ci wetu sëriñ bi ñay taxaw ña war a taxaw ci naaj bi ñooñu dinañ bàyyi ñu bari ñoom dinañ dugg toog. donte nañ mën nañ faa nekk sax di durus en attendant ba benn vague bi nga xamante ne nekk na ci booru sëriñ bi jóg bañ libéré leen ñu bàyyiwaat beneen vague bu mag noonu lañ ko fas yenee liggéeyee ren bu fekkee bu ñu sëñ Tuubaa dimbalee ba protocole yi ñuy naan protocole lu bokkul ak protocole yu bureau bi yu bureau bi désigné protocole retombé yooyu suñ ñu bàyyee ak suñu ak suñu sago rek incha allah dinañ liggéey liggéey bu set. jërëjëf Serigne Cheikh ci kàddu yu matala yu mbokk yi yaakaar naa li benn ponk la ci lu jëm ci li nga xamante ni mooy euh, liggéey bi lenn ci commission yi macha allah noonee nag la commission yi lawee kenn ku nekk moo xam organisation ñoom it nii ko sécurité waajee ñoom noonu lañ ko waajee commission culture naka noonu commission finance naka noonu di leen xamal rek ne lépp loo xamante ni jëm na ci màggalu xasida gi doon na liggéey bu ñu organiser ni ci njiital Serigne Abo moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Chouaïbou moo jiite liggéey waaye ànd kook commission yoo xamante ni it ñu jàmbaare lañ ci liggéey bi xam naa képp koo xamante ni it nga ci liggéey bi di nga gis nosu gi nga xamante ni comité bi tëralee na ko noonu li jëm ci li nga xamante ni mooy màggalu xasida yi kon lii lañ ñu leen indi woon mu jëm ci li nga xamante ni mooy fànn quoi sécurité incha allahu rabi nañ jëmaat ci beneen commission incha allahu rabi ñoom ñu wax ci seen wàccaay li nga xamante ni moo jëm ci màggal gi kon ne suuti ak yeneen élément wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.